lañ leen di indil saa su rek mooy jàmbaar góor yàlla yi nga xamante ne saa su dañuy nekk ci liñ war a nekk te jëmm ji ñu nekkal nag euh, di jëmm joo xamante ni jëmm ju gëm boppam la jëmm ju xam fi muy jëm jëmm ju mën li muy def dama koy bàyyi mu nuyoo sama nijaay maa ngi lay siyaar. waaw ñooy delloo siyaar sëñ bi la wér. bàyyi ngi am jàmm baax a baax ñu ngi bu baax kay ñu ngi sant ñu bàyyi la nga nuyu ñi lay seetaan. waaw maa ngi leen di nuyu di leen siyaare ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di leen màggal leen nuyu bu wér tey ji ñu ngi la fekk tey sa bërëbu liggéeyukaay bi nga xamante ni yàlla suñu borom jox na la xam-xam bi nga xamante ni mooy métier bi nga xamante ni mooy defar dàll cordonnier ci ban année nga commencé jàng li nga xamante ni mooy métier waaw métier bi nag ba ma ko tàmbalee jàng yàggul waaw durant bi nag daanaka dama bàyyi école rek dugg ci waaw mais durant jàng bi daal moom yàggul moom yàggul noonu quoi. non non donc maanaam boo ci ñaata at la war a toll. waaw su ma ko doon xayma nag mi ngi toll ci daanaka matul at sax wala at daal lay mat. ay at daal waaw diggante bi nga bàyyee jàng ak diggante bi nga xamante ni maanaam jàng ko métier bi daanaka boo koy xayma at lay tollool at. waaw ay at daal ay at daal lay toll mais matul at moom. matul at daal déedéet matul am na ñoo xam ne tey jii macha allah dañuy jàngi métier plus de dix ans dix ans ñàkk gëm seen bopp moo waral duñ mën a imposé wu ngir nekk ci li ñu war a nekk yow tey yàlla def tey nga jàng école dem ba ci biir nga arrêté jàng bi dugg ci li nga xamante ni mooy métier bi nga xam ne moo di cordonnier yow yaa ngi koy wax sa biir wax nee nga diggante bi nga ko jàng ak léegi matul at diggante boobu nga xamante ne matul at maanaam da nga doon suivre métier bi en cent pour cent wala nu fa demee noonu waaw diggante boobu dama doon suivre métier bi en cent pour cent mu nit ki moom boo xamee li nga bëgg rek danga nga jug daal di dox moo waral lool noonu waaw moo waral matul at. waaw diggante diggante diggante diir bi nga xamante ni def nga ni li nga xamante ni def nga diggante bi nga xamante ni mooy euh, jàng nga métier bi te teewul ba léegi yaa ngi ci defar mais diggante bi nga xamante ni commencé nga ci ubbi sa place toog ba commencé liggéey yan yan gàllankoor nga ci commencé am. waaw daanaka bi ma jugee fi ma doon jàngee métier bi ma sama patron yeewee daanaka ci kër gi laa nekkoon di di jugu ko daanu ba ba ba yàlla dogal ma tëj fii place waaw. diggante bi nga ubbee ak place ak léegi nii boo koy xayma ci ñaata moo la war a toll. waaw diggante bi noo ay at la kay ay trois ans yooyu rek trois ans quatre ans. waaw ay quatre daal. diggante trois ans quatre ans yooyu daal ci ci ci nga ubbi sa place boobu. waaw ci laa mais maanaam léegi euh, ci diggante dàll bi dàll yi nga xamante ni yaa ngi koy liggéey. qualité dàll yi maanaam ñu bari nee nañ léegi dàll yi léegi Sénégal yi léegi dañ koy liggéey comme tubaab bi niñ koy liggéeyee te ji yéen euh, prix bi nga xamante ni yéen yéen a ngi koy defaree dàll di ko dugalaat ci biir marché bi léeg gars yi ne ah ñi kat seen dàll rafet na mais dafa seer mais yéen ñi xamante ni yéen a bokk ci prix yi ñi nga xamante ne dañuy seeral ay dàll ba yéen bokkoo leen waaw boo déggee daal yu cher mooy maanaam dàll ba daa baax rek ndax am na daal yu yomb yoo xamante ne ni moom mu ngi ci biir marché bi waaye loolu du taxul ñu naan daal waaw parce que boo jëndee matière bu cher bu baax boo xamante ne ni koo gis bëgg ko amaana boo ko liggéey ba noppi di nga ko jaayee loo xamante nii ni di nga ci mën a génn. waaw looloo waral ñu naan daal yi daa cher mais daal yi cherul ku ko xam dëgg dina xam ne daal yi cherul. tey jii ñi nga xamante ni tey jii maanaam comme sama classe yi nga xamante ni dama yàlla bal mais dañoo bëgg ay dàllu fermé xam nga tey jii euh, ci biir xam-xam bi tey jii tey bu kenn jugoon fee ne daan ah man de tey ci cordonnier bi tey laa bëgg a dem yëpp benn dàllu fermé ne ko ah façon dàll bi laa bëgg ngir mu créel ma ko est yow boo xoolee ci modification bi nga xamante ni mooy façon dàll boobu ni mën a créel comme façon dàll boobu ah waaw fii moom dàll boo fi indi ak loo fi mën a indi pour ñu kereel la ko dinañ la ko kereel ba ni ko bëggee ba bañ na ko sax ba suñu logo Thier création moom moo ci nekk. yaa nga ne seen seen logo moo si ne. Thier création. moo tax yéen ngeen garaaw. ah mais affaire yi da ngay créer rek parce que li tax man la métier bi yey maanaam yàgguma ci ci ke métier bi dafa doon loo xamante ni nii moom doonul loo xamante ni luñ la jàngal jàngal te créer moom amaana doo ca mën a sori. waaw te kenn du la ca mën a dégg. Mhm. Ah, tey euh, ñu ngi ñu ngi jëm ci wàccaayu màggal Touba gi tey yan xeetu façon daal ngeen fa yéene génneel ñi nga xamante ne mooy muritu Baye Fall. ah waaw muritu Baye Fall yi moom Fall ñu ñi ay Baye Fall lañ waaw man ko ay Baye lañ xanaa ay kawas yu yéeme rek waaw ak ay nuyu yu baax yoo xamante ni daal dina mën ma ak ay der der yooyu der yoo xamante ni boo ko takkee moom di nga yëg sa bopp bu baax a baax a baax ci liggéey bi. yooyu daal la dox ci màggal gi. yooyu noonu maanaam tey jii boo ko xasee ba defar maanaam ki sol maanaam mën na koo sol te tàngoor du ko solal dal du ah, waaw moom kay boo ko solee day mel ni solo daal sax waaw te it la neex nga nga koy mën a dugal te it day faciliter sa sa xidma bu baax sax ci liggéey bi day yomb daal waaw man ko day yomb. tey ji euh, diggante euh, li nga xamante ne mooy góor ñi ak jigéen ñi tey ji yow ci commande jigéen ñi ak commande góor yow nga jàpp ni léegi euh, ñun moom ñun ñun ñun personnel ñun ci li ñu bëgg xam mooy liggéeyee liggéeyal jigéen ak liggéeyal góor nga foog ne ban moo ci gën a neex ko parce que am na jigéen ñoo xam ne moom liggéeyal leen dañuy xaw a compliqué am na góor yàlla yoo xam ne tamit kasaalika ko dañuy dañuy neex a liggéeyal mais teewul tamit léeg-léeg tamit ñu xaw a compliqué liggéeyal mais léeg-léeg ba ba bu la jàppee xam nga nit ñi duñu ñëw di la ci yenn débat yeeg waaw man bañ na ko ba événement bu jotee sax dama naan du liggéey liggéeyu jigéen ndax ndax ndax ndax maanaam liggéeyu jigéen moom dafa xaw a doy jigéen ñi moom bari nañ ay caprice te seen liggéey daal dafa xaw a yéex waaw moo tax euh, daanaka li daal jigéen moom liggéey jigéen moom bu événement laa ko liggéey mais bo événement jotee moom du ko liggéey ndax day jël temps te jigéen ñi duñ comprendre ñoom ñoom daal luñ bëgg rek moo war a am waaw te yàlla moom ay mbiram doxewul noonu parce que mën ngaa bëgg dara te yàlla du ko dogal ñoom nag duñ mën a xam loolu mais bu dee ku góor ki nag dina ko mën a comprendre voilà moo tax daal man événement du ma liggéey daal jigéen mais bu yesoo moom damay liggéey daal jigéen saak lépp mais mais tey jii euh, maanaam euh, pare saa yi doo doo léegi di def comme maanaam nga jékki-jékki def benn benn commande boo xamante ni comme maanaam mu leer la événement bi di a ñëw jigéen ñi kat dinañ soxla ay quelques commandes. léegi comme que ñoom dinañ soxla ay quelques commandes téema teel a profité liggéeyal ko balaa événement yi di jot wala maanaam bu événement yi jotee moom da ngay jël jigéen ñi tege leen côté waaw man moom bu événement jotee moom damay jël jigéen ñi tege leen côté du beddi nag mais seen liggéey ak euh, sama liggéey par événement daa bokkul daal. waaw ma ne ko daa bokkul te it ma dee semb semb góor laay semb daal waaw jigéen moom sur commande kese laa ji liggéey sur commande. tey jii euh, am na foo xam ne tey jii buñ ciy dugalee parce que euh, euh, ñu ngi ci première partie génn nañ ci léegi ñu ngi jëm ci deuxième partie tey jii bu ñu xoolee maanaam diggante bi nga xamante ne diir bi nga ne jàng nga ko école ci sa jaar jaar diggante bi nga ne jàng nga ko métti ci sa jaar jaar yan métit ak yan gàllankoor nga ci mos a dund ba toog fàttaliku ne carrément ndeysaan xam nga bi ma jaaree woon fii lii metti woon na lan la woon quoi maanaam ci jaar jaaru góor. góor moom yenn moom des fois da ngay am jaar jaar boo xamante ni moom dina xaw a yéeme lool waaye lépp rek lépp rek dañuy maanaam waajur yi daal dañ lay ñaax pour nga gën a am jom. waaw parce que des fois ñu def la wala ñu dund ak yow loo xamante ne ni da naan xanaa kii juruma waaye. maanaam boo amee xel tuuti da nga naan kii dafa bëgg maam jom moo waral suñ métier bi demee nii mu demee wax dëgg fa yàlla. Mhm. tey jii euh, nga xamante ne tey jii maanaam dañuy dund maanaam ci yenn kër yi maanaam tey da ngay gis koo xamante ni day jóg xëyul gontul mhm. kooku. dangay ngay jékki gis parents yi dañ koy bëgg lool fonk lool bàyyi ko ci biir kër gi nga gis koo xamante ni maanaam suba ak ngoon mu ngi xëy di rente waaye yàlla suñu borom dimbaliwu ko wërsëg te chaque mu ngi jug di baax de te saa bu duggee ci biir kër gi am yenn gàllankoor yoo xamante ni baat yoo xam ne da koy faral di ko dégg te ji yow maanaam mosoo toog ba si ak nga jékki-jékki fàttali ko ne ah dégg naa moo boo xamante ni waaye moo bi ma dégkat donte jëwee nañ ma ko waaye man dégg naa ko waaye incha allahu rabbi danaa jëfe noo xam ne bisa ngi ñëw ñoom du ñu ree waaw loolu moom dëgg la ndax chaque jour nga dégg ko des fois di nga nekk ci métier am sax ñu la koy xeebal yaakaar ni sa moom lii mu nekk moom maanaam dañ la koy xebal daal ci gàttal yaakaar ni daal du dara waaye ñu ñu ci nekk xam nañ ne liñ nekk nii dara la ndax loo xamante ni ci ngay suturloo soxla boo bëgg a faj faj ko ci yaakaar naa ne yow boo boo dul dof di nga ko téye bu baax a baax a baax te amaana yenn wax yi yiñ lay wax dañuy bëgg nga am jom rek man loolu laa ko jàppee. yaakaar naa ku lay ku lay ŋàññi muy sa waajur wala kenn dafa bëgg nga am jom kese kese kese kese moo waral muy wax waaw. tey ji euh, ci diggante bi nga xamante ni léegi yàlla sa borom dogal na nañ léegi euh, dem nga tey ji ba ubbi sa place toog di liggéey. tey jii booy fàttaliku démb tey jii ban mbégte tey jii nga am xamante ni ëllëg tey ñaan nga yàlla tey jii teral ci ñi nga xam ne tey ñoom nga ci war a teral donte mbégte day am ci nit léeg-léeg nag nit dina taxaw fàttaliku métti boo xam ne daan ah man de ay jamono de lii de dund naa ko ak nit mais est-ce que man lii ma yëkkati nii ji ndax ko dimbalee est-ce que jar na di ko ñooñu quoi jékki-jékki fàttali ko dara jàpp mel non des fois des fois moom di nga mel mais boo xalaatee tuuti danga naan jarul mer ndax amaana comme li ma expliqué léegi rek am na ñoo xamante ne buñ defee dara dañ la ciy dimbali rek waaw ma ne ko dañ la ciy dimbali rek wax dëgg fa yàlla. tey jii euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo dernier kàddu yi leen neex ak leen. ah waaw xanaa di sant rek di sant rek di sant rek waaw ñu ko di di sant rek wax dëgg fa yàlla di am mbégte bu baax a baax a baax waaw ah, di gërëm tamit sama patron Pape Mbow moom moo ma jàngal métier te it bi ma jàngalee métier amaana nekk naa fa lu bari mu xamal ma ko ba it ba ma demee ba am fu ma toll ba expliqué ko ba ba bëgg faa jógee daf ma ñaanal wutal ma bépp kayit boo xamante ni suñ métier mi soxla na ko tamit bu valable ci réew mi wutal na ma ko maa ngi moom wax dëgg fa yàlla mu ko mën te it fu mu toll daf may woo di ma nemmeeku di ma laaj te loolu noon man mii la woo waroon wax dëgg fa yàlla yaa ngi yaa ngi dugg fu foo xamante ne ndeysaan fu ma neex la tey ñu bari tey ji dañuy jàng métier dem ba ci biir xuloog seen patron tapas yoon beeg seen ñu fi bopp daan ne léegi ñoom beru nañ nanga ma mais yow da ne mooy papier boo xamante ne maanaam képp ko xam ne tey doo ko ngi jàng métier mais papier yooyu noonu tey ji amuñu ko teyoon nañ seen i place ñooñu tey ji boo leen doon conseillé tey lan nga leen di conseillé waaw li ma leen di mooy maanaam jamono ji moom métier daa doon loo xamante ne ni même boo ci nekkee tamit teyit ñaanalu luñ la amaana métier bi boo ci xamee dara du la jariñ dara ndax amaana kaa nga nekkaloon di sàqu si moom xam-xam amaana la war dëgg joxoo ko ko teyit ba nga fay jóge tamit parce que am na ñoo xamante ni moom soxoruñu waaye am na ñoo xamante ni tamit dañoo soxor waaye luñ soxor soxor yow yaay sàkku sa métier yow yaa war a xam noo ca war a doxee li tax man la bëgguma ko woon wax sax waaye naa ko leeral man sama métier mi daanaka naka mois laa ko def 6 mois net bi ma ko calculé mois bi ma demee ba xam fu ma ba am fu ma toll may sama taawub yaay sama yaay am ma man donc benn góor bi ma ko expliqué def maa comprendre te xam ne amaana la ma waroon a xam lu ci bare baree baree bari xam naa ko leneen li ci des ay motali la kese waaw ba nii may wax ak yow su ma amee loo xamante ni jaaxal na ma dama koy woo ni ko lii ak lii nangam sangam te su boobaa nam naan def ak man dong lay def ak man moom daal moom ma gën a motiver moom wax dëgg fa yàlla waaw. mi nga xamante ne taxaw nga ne euh, jàkkaarloog sa yaay na ko ah man de sama patron de ñaanal na ma léegi dama fas yéenee dem beru ji ngir jël tey ji sama place su bopp tey ji sa yaay tey bi ko expliqué loolu tey moom lan la leen ci xalaatam. ah waaw sama moom boo ma ko ko leeralee moom daf ni ma wax dëgg loolu moom taw fexe la comme que waxtaan nga ak sa patron moom ba it comprendre na la ndax du lépp lañ mën a yaatal ci télé yeeg affaire yooyu noonu waaw daf ma ko nangul rek moom it ñaanal ma wax dëgg fa kon macha allah yéen a ko dégg noonu gis nga nag àdduna bi bu ngeen gisee nag jàmbaar yi mel ni saasu su ne ñu leen di jëli seen i xam-xam da ciy bokk mais léeg-léeg tamit seen jaar-jaar tam da ciy bokk la ca des ba des tamit topp tamit seen i ndigali waajur topp tamit seen ndigali patron ba seen patron jël leen teg leen fi nga ne fa lañ leen a teg ñun ñooñu lañ soxla ñooñu lañ soxla ci réew mi te ñooñu lañ tamit seen métier bi képp koo xam ne yéen a ngi toog tamit di leen jàng ci am si exemplaire yi mel nii nijaay léegi ñu bàyyi rek comme que woon nañ mais teewul tamit dafa am loo xam tamit dañ nga am jaar-jaar yoo xamante ni sax donte sax doo ko mën a expliquer pour nit ñi mën ko comprendre mais léeg il faut nga xaw am lu tuut loo xam danga ko si xaw cos ngir bëgg nit ñi ëllëg ci biir képp koo xamante ne amoo woon ah ah def ni kat ba man war naa mën a góorgóor ko def man lu raw li nga xamante ne moom la def comme maanaam loolu tam dañ ci sant di ci gërëm di la na tamit jàppal dina gën baax parce que métier bi tamit noonu la gëm-gëm bi nga am nag ba toog fii tamit ji moo doon place bi nga ne yàlla nga toog ba formé ci ay employé yoo xam ne ëllëg ci bi comme ni nga toogee tey di sant tey sa patron tey ji ñooñu tamit toog tey ji di la ci sant parce que ñu leen di leen indi loo xamante ni da ngeen koy seetaan bopp te du ngeen ci déggee xam-xam bopp te du ngeen ci jariñu ñun soxla wuñu loolu ñun saa buñ rek soxlaa tax ñu indi leen te lu ngeen soxla dañ leen koy wëril fii ba àdduna fii ba feeg ba waaw feeg ñu ngi am gudd fan ak wér rek di am tawféex rek saa su ne rek lépp li ngeen soxla rek dinañ leen ko indil bu leen fàtte nag di abonné di leen abonné wu ci seen bi nga xam ne yéen a koy seetaan di leen Bienvenue sur Salam Vision.